asalaamaaleykum ngeen ñi safoo seen seen bi di DBT TV dal leen ak jàmm ci xibaari bitim réew yi ñu koy doore ak waa Sarayal justifié nañ ab bomb bu ñuy wax RBG benn char de biir Kafa bu Sunisiya bi nga xam ne nag da doon dugg ca kàcce ba ñuy wax alxasaasib ambulanceur israélien ñooy xam ne ni eh, juróom am juróom nag ñu daal di blessé kenn daal ca faatu eh, ca soqante bal ba nga xam ne moo am ci ñaari sit yëpp nga jege eh, fa nga xam ne mooy oxside nañ nag naturalisé nañ ña nga xam opération ñu wëyal ak Washington Post jële na nag ci ab responsable israélien buy xamle ne Netanyahu moom ci boppam du xaar benn fond vert buy jóge ci waa Washington mu jëm ci fayu gi nga xam ne moom la nar a def ca waa Iran ba tey ci xibaar yi Hezbollah nag ma ngay utiliser missile balistique di ko dóor Haïfa démb nag dóor na fa ñaari missile balistique tey jii tamit dóor na fa ñaari missile balistique ci suba teel gi Hezbollah nag publié ab vidéo di ci dañoo blessé ca ay fa Corée du Nord explosé na tey jii ci suba frontière bi nga xam ne ay militaire ñoo fa taxaw ca Corée résisté nañ fa ay yàqu-yàqu ya fa am ca ligne Corée du Nord ba Corée du Sud Corée du Nord nag ak Corée du seen carrière ba nga xam ne seen frontière ba séparation miiru frontière ba Corée du Nord bombardé na ko Corée du Sud nag disparaître na militaire Corée du Nord ya nekkoon ca frontière bi explosé carrière ba ba foofee nag ma ngay tàkk Corée du Nord nag ak Corée du Sud fi mu ne nii seen coow la ma ngay wéy mu mel ne nag si nag Taïwan Iran Israël Russie ak Ukraine foofu yëpp tamit seen coow la ah, ma ngay woy ñu daal dem ci ki ñuy wax Kim Jong Un def naa benn réunion bu am important ci ñi nga xam ne ñoom ñooy xefe militaire yi nga xam ne ñooy liggéey xefe ya gën a kawe ak ñi nga xam ne ñooy sécurité Corée ñooy waxtaan ah, ca plan ya nga xam ne dañ koy tëgg ca violence yi am ca espace aérien ba nga xam ne Eh, Kim Jong on nag moom moo tooñ daal di jël ab doronam dugal ko biir Corée du Nord Corée du Nord nag ñoom ña ngay teg seeni plan ngir daal di def la nga xam ne moom mooy action militaire immédiate gis nañ benn jullit ci autorité israël yi mu daal di jëlub fital soq ko benn policier bu policier ba mujjee ñàkk bakkanam waaye nag moom waaja def loolee laata muy daw nag waa israël jàpp nañ ko ba daal koy reyaat israël nag moom dafa nekk réew mu nga xam ne boo ko tooñee ci suba gi balaa ngoona dina fayu benn réew rek moom moo ko tooñ moom moo ko def loo xam ne metti na ko te ba léegi fayoogul muy réewum Iran gannaaw li nga xam ne defal na ko ci ay yàqu-yàq am ay nit yoo xam ne faat ko communiqué tey lay fa yoote boobaak léegi fa yoogul loolee nag day wone li nga xam ne mooy puissance bi nga xam ne réewum Iran daal dina koy amee xibaari bitim réew yi dañ koy jeexal ak Alexandre Ocasio di membre de la chambre représentant des États-Unis moom nag nee na war na ñu daal di jël ay dogal ci tere ngànnaay yi nga xam ne ñu ngi koy yóbbu ca Israël nee na nag ñaawteef yi nga xam ne ma ngay feeñ ca nooru bande de Gaza ba résultat la yoo xam ne résultat gouvernement Benjamin Netanyahu mi nga xam ne tëkkuwul ci dara la ak ni nga xam ne nag ñoo koy jox ay na nay waa administration bu bu Joe Biden nee na nag eh, nee na nag ci waxtu wi nag ñu toll nag ña ngay tere ay aide humanitaire yu daal di jëm biir Palestine déet waaye tamit déet bombardé ña nga xam ne dañoo tawat ca hôpital ya nee na nag dafa war daal Amérique daal di bàyyi jàppandel gi nga xam ne mu ngi koy jàppandal waa Israël kon wooki lii leen indi loon suñu xibaari bitim réew di leen jox dig daje a suba jàmm di wax ngeen abonné ci seen bi te bés cloche de